Abdoulaye Thiam ñu ngi lay nuyu di la dalal. ngay journaliste euh, sportif jiite tamit association nationale de la presse sportive euh, du mhm. Sénégal. Mhm. tey ñu wax ci euh, sélectionneur africain yi tey ñoo ngi xaar ba le 4 janvier donte date bi le 27 la woon ngir ñu mën a am seen joueur yépp ñi nga xam ne dañuy jóge ci club bitim réew yi tey nan nga jàngatee accord bi nga xam ne CAF am na ko ak FIFA. ah mbetteel la mbetteel mbetteel bu bu mag la parce que euh, suñu mooywul ah, ñu rey football Afrique parce que lii kat ah, guleet la ñu gis ko ah, keroog euh, amul luñ deful def nañu sondage bu nekk def nañu ay ay lu ñuy woowee fake news jël ay information yoo xam ne amul ñu jox ko ay ay taskatu xibaar yoo xam ne ñu ngi nekk Europe mm. ñu génnee ko ñu naan dañuy annuler suñu Coupe d'Afrique waaye antul léegi nag euh, tey le vingt sept décembre ñu bëri comme à commencer par le Sénégal mm-hmm. Aliou Cissé da doon xaar tey joueur am démb dañu yëg ne CAF ak FIFA d'accord nañu pour bàyyil club employeur yi ñu téye seen ay joueurs jusqu'au 3 janvier loolu nag li muy indi première conséquence bu muy indi mooy Aliou par exemple lépp lu mu tëraloon comme préparation daanaka nax saay na mm-hmm. dafa xalaatoon ne dina déplacé wu dem fële ca Kigali pour mu organiser foofu benn camp d'entraînement am ba le mu jógee ba le mu jógee foo mu dem nga xam ne moom mooy Bafoussam. Mhm. léegi nag loolu mënutul nekk en tout cas man ci loma ci lu ma xalaat parce que yëmatuñu seulement ci club anglais yi Aliou Cissé lu mu doon tëral yëpp dafa doon xalaat ne club anglais yi duñ mën a ñëw. Mhm. par exemple dañuy football boxing day ba le deux mais léegi ko jël généraliser ko maanaam képp kuy employé joueur boo xam ne war nga mun a bokk ci Coupe d'Afrique bi permettre lañ la nga téye ko. te loolu nag même su fekkente ne da ngay football wala footballoo yëpp. Mhm. liñ ci gis mooy généralement club yi duñu faral di bàyyi seen joueur yi ñu donc France Euh, <clears throat> lu ñuy woowee seizième de finale Idrissa Gana Gueye mun am kenn du ko bàyyi. Mhm. ñi fa nekk te instant yi au moment où je te parle Aliou Cissé xam na ne par exemple ñetti gardien yu mu convoqué yëpp kenn si ñoom du ñëw Seny Dieng du ñëw Alfred Gomis du ñëw ki nga xam ne mooy Edouard Mendy di ñëw donc su naree def regroupement il faut que au moins mu dem si championnat national bi mu xool foofu ñetti gardien yoo xam ne pour mu mun a au moins euh, euh, jéem a liggéey ak joueur yoo xam ne. dinañ nekk à sa disposition et ça m'étonnerait yenn club yi aussi ñu bàyyi seen joueurs yi ñu ñëw tey wala ñu ñëw suba. Mhm. te li ni mel ban njeexital lay am tey déjà ci préparation équipe yooyu la. préparation boo xam ne lépp liñ ci tëraloon lépp yàqu na tey ci muy moom Aliou Cissé muy entraîneur Vahid Halilhodžić bu Maroc. Mhm. muy euh, entreneur ki nga xam ne moom mooy Jamel Medi Belmadi bu Algérie. Mhm. muy keneen ak keneen képp koo xam ne contingent am yëpp mu ngi jóge woon Europe mu war a ñëw. lép loo tëraloon tey ji yàqu na te surtout encore soo moytul dinañu gis guleet pour la première fois Sénégal di dem ci Coupe d'Afrique te du am benn match sa xaritoo mhm. mooy match sa préparation ñun dañ ko prévoiroon le trois contre Rwanda te loolu so moytul match boobu sax dootul amati mhm. loolu nag dina indi ay gàllankoor yu bëree bëree bëri ci wàllum préparation yi nga xam ne Euh, ci coupe d'Afrique bi ñu jëm. tey jii ndax li ni mel euh, taxul ñu gën a dellu ginnaaw gannaaw nag euh, ñu amal kaan gi wala duñ ko amal loolu ñu weesu ko tey li ni mel mu am ndax nekkuñu di dellu ginnaaw. dellu ginnaaw bi moom weesu nañ ko parce que boo xoolee ba nit ñi bu ñu toogee tey ku mel ni Issa Hayatou toogoon fii ñaari fukki at ak juróom. Mm. ñu koy rëccu c'est parce que. lii nga xam ne mu ngi koy am léegi suñu football Issa Hayatou mu fi nekkee woon kenn xalaatu ko mm-hmm. mun nga ko wax ne moom de buur la mun nga ko wax ne moom de kenn ñemewu ko woon mu moo doon day day def lu ko neex euh, day dugal ku mu neex mu génnee ku mu neex waaye munoo woon wax ne benn yoon Issa Hayatou am na benn tubaab bu ko ñemee ñàkkal fayda ñàkkal ko fula ñàkkal football africain fulla ak fayda hmm. waaye bu mu fi jógee ba léegi nag depuis ki ko remplacé mooy Ahmad li ñu gis ci moom ñemewuma ci sax ñëwaat ki nga xam ne moom mooy Patrice Motsepe aussi bu mu fi ñëwee ba léegi daanaka nekk na président officiellement mais defa mel ni du moom mooy diriger confédération africaine de football. Hmm. te loolu nag bu ci jugul teel soo moytuwul football Afrique fii lay jëree fii lay jaaree dee benn yoon. d'accord mu am football Afrique mu am tamit compétition tey muy kaan bi euh, nan nga jàngatee ëllëgam. kaan bi aussi buñ ci buñ ci deful attention soo moytuwul dootul am parce que euh, dangay xool rek fu ñu jógee ci coupe d'Afrique bi. Hmm. période ak périodicité mooy euh, ñaari at lañ koy def wala ñeenti at lañ koy def. Hmm. ak kañ lañ koy def janvier février wala dañ koy def mois de juin juillet ci nawet. Hmm. loolu. tubaab yi musuñu si bàyyi seen xel isaayatu dafa ko musoon a bañ léegi nag depuis un certain temps quand gis nañu ñu ngi ñëwaat encore ci discussion boobu noonu ba léegi dafa mel ni am nañ ci doole bu bëree bëree bëri surtout que euh, euh, FIFA mu ngi leen ci yokkal doole ak CAF encore di leen bàyyil terrain bi ñuy def euh, lu ko neex lu leen neex ci football africain hmm. loolu li koy li koy li koy li koy saafara rek lenn la mooy ñu harmoniser calendrier aduna bi yëpp parce que bu bu ñu deful loolu soo moytuwul tey jii dafa am xeex boo xam ne FIFA ak CAF ñu koy xeex te loolu yoonu Afrique nekku ci FIFA moom moom moom football waaye UEFA européen yi tubaab yi dañuy yore xaalis bu bëree bari bëri yore ñetti compétition yoo xam ne da leen di gën a yokkal xaalis benn bii mu ngi tudd Ligue des champions. Mhm. beneen bi mu ngi coupe tudd coupe d'Europe. troisième bii mu ngi tudd Ligue des nations te Ligue des nations bi dafa tax sax ba léegi ñun dëkku africain yi mënatuñu football ak pays yi parce que date FIFA lañ doon utiliser te léegi date FIFA boobu ñoom boobu la ñuy utiliser pour jongante seen biir ñu organiser mooy lu ñu woowee coupe des nations at bu nekk muy am donc ñun bu ñu xarul suñu tànk tubay bu ñu réfléchirul bu baax a baax a baax bu ñu amul aussi gendarme bi nga xam ne moom mooy FIFA mu xaw ñu faral bu nekkee dafa faral day faral européens yi soo moytul ñun dañuy nekk faire valoir maanaam coupe d'Afrique maanaam euh, su jotee rek moom mu ñëw jël avion am dem rencontrer Macky Sall dem rencontrer président euh, moo tax nag président aussi président africain yi aussi dañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax a baax waru ñu waruñu fal kenn koo xam ne su solo su leen soxlaawee ngeen ñëw ngeen jox ko ngeen jox ko kartam bu paree ci yéen mu jël leen comme mouchoir Kleenex def lu muy def ba pare après jël leen sali leen ci poubelle bi uudi nag nu mu la gisee noonu lay oolee bu fekkente ne dañu bëgg a delloo suñu football ginnaaw nañu continuer situation bu ñu ni bu ñu bëggee nag bañ xam nañu nu ñu war a def pour bañ war nañu bañ sax ba participer ci coupe du monde su fekkente ne dañu bëgg a naax naax football africain. loolu nga jàpp ne mooy solution yi daal. effectivement amul leneen parce que xam nga rapport de force moom rapport de force rek na muy politique ba muy diplomatie ba muy leneen ak leneen nit kii bu fekkente ne amul ci yow benn respect waroo ci moom am benn respect nit ki su fekkente ne mënu la yaakaar ba pare yeb la loolu mooy wax ji mënoo nekk fii nga nekk contingent bu gën a puissant ci wàllum élection cinquante quatre états xoolal loolu rek coupe du monde bu jotee cinq places kese la ñu am pendant ce temps Amérique latine dix la ñu te ñoom ñu ngi ñoom tamit ñun ñoo tolloo ay place loolu naka lay africain yi mun a bàyyee loolu te ku te à chaque fois élection bu jotee président buñ fi mun mënta fal président bu ñu mënta fal ci FIFA ci Afrique presque moo koy fal mais loolu mënul wéy munoo à chaque fois boobu ma soxlawee nga ñëw nga wax ma li nga bëgg ma defal la ko e nga dox ci dolli encore di ma naxasaayaal di ma tuutil di ma ñàkkal fulla di ma ñàkkal fayda surtout nag ki nga xam ne moom moo toog ci yii nii ci boppum kaaf fu mu jógee Afrique du Afrique du Sud démb rek da Desmond Tutu génn àdduna. Hmm. ñëpp gis nañu taxawaayam bu mu taxawoon ci euh, sukkali nit ku ñuul. Nelson Mandela moom lu mu am tey jii ci alal Nelson Mandela moo ko ko jox moo créé benn loi discriminative di ko permettre muy dugg ci contrat pétrolier ak minier muy am alal bu dul jeex munoo juddoo Afrique du Sud màggee Afrique du Sud gis Afrique du Sud nu mel gis nan man Nelson Mandela taxawaayam ngay ñëw fii ci taxaw ci taxaw nu noa euh, tubaab yi. ngay def naka sudul loolu bay doomu Afrique yi dafa am lu ñu lay teg loolu warul am te gis nañu fi ñu nit yoo xam ne jot nañu woon fii nit nit ku ñuul place bu mu war occupé Lamine Diack képp kenn ñemewu ko yet Pape Diouf kenn ñemewu ko am nañ fii ay royuwaay ñoom tamit ñooñu la ñu war a roy comme li ma la waxee woon encore dama koy répété waat uude nu mu la gisee loolu la lay. ndax da nga jàpp gannaaw li nga wax nii yëpp ne moom MOCP ak équipe am du ñu cédé à la pression. bu xoolee ci bu xoolee ci jaar jaaram yëpp. foofu foofu def nañu leneen loo xam ne man neex na ma trop parce que keroog FIFA ak dafa utiliser ay yenn président africain président Mauritanie ci la bokk président Égypte ci la bokk président Maroc ci la bokk président Burkina Faso la bokk ñii ñi leen jël ñu nànk leen ñu leen dem leen foofu noonu ci comité exécutif bi ngeen fexe ba ñu niinal Coupe d'Afrique Augustin Senghor dafa bañ président Motsepe bii dafa bañ ak ñeneen ak ñeneen dañu xar seen tànk tubay ñu bañ ñu ne ko lii du fi amee Paul Biya jël téléphone woo ay président africain yu bëri nee leen bu leen nangu ñu annulé coupe d'Afrique te Cameroun nag man du ma Camerounais mais Cameroun nekkul dëkk boo xam ne dañ ko war a ñàkkal fulla ak fayda mhm. parce que Cameroun dafa am lu ci football africain ak football mondial Cameroun gagné na juróomi yoon coupe d'Afrique Cameroun gagné na Jeux olympiques Cameroun football na final euh, euh, football coupe de la confédération mhm. Cameroun mooy dëkk premier dëkk africain boo xam ne egg na quart final finale du coupe du monde en 1990 mhm. ça tout le monde ñu jógee deux places dem ci ji cinq places tax ak Sénégal ñun ak Sénégal Cameroun Sénégal ak Niger ak ak Ghana ñoo ko fi mus a def. Hmm. loolu nag bekk bu mel noonu warul naan day organiser Coupe d'Afrique depuis deux mille dix neuf ba léegi ngeen koy laam ngeen koy buntu xatal di ko def lu nekk alors que Cameroun. place bu muy occupé amul benn dëkk bu nekk fi Afrique boo xam ne occupé na ko. Hmm. nit ki nag dafa war a fulla ak faydam xam nga nga xam ne li li war a sukkali football Sénégal yenn confédération africaine yéen a ko war a def pas football Sénégal rek mais football africain bi dans sa globalité. Mhm. Abdoulaye mhm. Thiam ñu wax ci suñu budget prévisionnel euh, bi nga xam ne moom la ñuy waajalee suñu bopp wala sax moom la ñuy demee euh, ci jongante googu nga xam ne ñu ngi koy waaj tey cinq milliards la toll coow li bari ci ñenn ñi naan dafa ëpp noo ko jàngatee. xam nga sénégalais boo ko waxee cinq milliards day gis xaalis bu bari hmm. waaye nag dafa baax ci wax bu jubee nga xool ñaari fukk ak ñeent fay dëkk yi nga xam ne dem nañu Coupe d'Afrique yëpp mhm. ku nekk nga saytu budget bu mu yóbbu Coupe d'Afrique ñi nga xam ne dañuy jéem a jongante moom mooy le top dix amul kenn ku ci am budget bu néewee nii ni Sénégal mhm. cinq milliards bi nag euh, mooy euh, euh, état du Sénégal mhm. ak fédération ñoo war a expliquer askan bi cinq milliards bi lu tax ñu jël ko dañ ko jël depuis premier jour préparation mooy tey hôtel gu dal dañ koy fay lu ñuy lekk dañ koy fay bus yu ñuy jël dañ koy fay ba final le 6 février suñuy remporté trophée bi prime yi ci la bokk prime huitième de finale prime de qualification prime quart de finale prime demi finale muy staff technique bi ak vingt sept joueurs yi ñu sélectionné yëpp hmm. loolu mooy loolu soo ko xayma yi moom mooy toll cinq milliards daanaka boo ko jëlee nga comparé ak Côte d'Ivoire lu yokk da ngay xam ne Sénégal defu bi dara hmm. boo ko yóbbee Égypte nag da noppi boo ko yóbbee Algérie da ngay noppi te ñëpp dañuy sumb mooy gagné coupe d'Afrique bi yow munoo def cinq milliards nga yaakaar te xaalis bu bëri la ba pare encore nga bëgg remporter coupe d'Afrique nit ki da ngay xam li nga bëgg hmm. Sénégal nag dëkk boo xam ne loo fi mënta def coow rek la hmm. dañuy coow rek coow bi ko indi nag mooy gars yi ne déconstruisent pas boo waxee nit ñi cinq milliards laa yóbbu coupe d'Afrique da ngay taxaw nga expliquer nit ñi cinq milliards dans les détails nii laa koy defee nii laa koy defee ba leer ci bopp ñëpp parce que dëkk bu néew doole la boo leen waxee cinq milliards ala kulli àll séeréer yi yëpp dañuy yaakaar ne cinq milliards bari na bari na bari na <laughs> alors boo defee bi du dara. de la séeréer yi dañ laa déggul. Euh, ñu jeexaleeg tey suñuy chance tey nan nga jàngatee euh, suñu chance yi ci foofu ci jongante bi. suñu chance euh, chance bu intact la. Hmm. man de gëm naa ne Sénégal musul amee chance ni pour gagner au moins pour la première fois depuis mille neuf cent soixante cinq Coupe d'Afrique des Nations. Hmm. munoo yore équipe depuis ñetti at yaa fa teg sa tànk. Mhm. nga yore entraîneur mu ngi fi depuis deux mille quinze ba léegi mhm. entraîneur bu gën a par parmi vingt quatre sélectionneurs yi dem yëpp Aliou Cissé moo ci gën a yàgg. Mhm. nga yore fédération depuis deux mille neuf amul benn fédération bu amee noonu expérience parmi vingt quatre yi dem yëpp. nga yore état boo xam ne foo joxoñ mu dagg. yaa ngi wax léegi cinq milliards bëri na bëri na bëri na mm-hmm. parce que état du Sénégal léegi équipe nationale lu mu soxla mu defal ko standing bu équipe nationale yore boobu la équipe de France yor boobu Algérie yor boobu la Égypte yor boobu la ak ñeneen yor mm-hmm. nga yore une presse alerte qui joue son rôle de vigie nga yore ay supporters yoo xam dañu leen accompagner foo mënta dem nga yore sa défense Kalidou Koulibaly considéré comme le trois meilleurs défenseurs nga yore le meilleur gardien d'Europe nga yore un des nga yore Idrissa Gana Gueye muy football Paris Saint-Germain nga ne dafa am koy tiit wala koy ragal da nga war a ànd ak sa fulla sa fayda nga accepté yow yaay favori numéro un. Mm-hmm. koo tasanteel nag nga respecté ko. amul Zimbabwe la amul Malawi la amul Égypte la amul Algérie la amul Côte d'Ivoire la amul Cameroun la koo tasanteel na nga ko nga teg football bi ci yoon nga gagné ko ñibbisi remporté suñu Coupe d'Afrique président de la République jël suñu avion dugal ci supporters yi joueurs yi troubadours yi ak tout le monde. ñun ñëpp ñu ñibbindoo feetandoo ko pendant un mois nag mhm, ñu lay jaajëfal bu baax a baax di souhaiter bonne chance Sénégal le plaisir pour moi